de l'utérus nga xam ne mooy solo jigéen ñi ak cancer ween bi mais buñ jëlee ñaari cancer yooyu buñ jëlee cancer xeetu cancer yi nekk ci Sénégal bi yëpp cancer col de l'utérus mooy butitu njurukaay bi ak cancer ween moo gën a sonn moom moo ci ëpp ci li muy ci li muy rey te cancer col de l'utérus cancer la boo xam ne buñ ko teelee gis nit ki mun nañ ko faj dindi loolu ci commencement ba bu teelee dem ñu dindi ko ba nga xam ne ne du ko mun a faagal wala mu indil ko yeneen problème donc ñun cadre boobu ministère de la santé dafa am ay stratégie yu mu teg pour jàppale nit ñi xam nga loo gis rek ñàkk da ciy baax ndax bu njëkk ba euh, suñu parents yi am na yenn feebar yoo xam ne ngas wala pays wala feebaru polio mooy feebar bi nga xam day jàpp benn euh, cër di ko lafandoo loolu yëpp dafay bëri woon am na ñu bëri ñoo xam ne feebar yooyu moo leen defal ay handicap mais ak vaccination yi mooy ñàkk bi ñuy def dem na ba feebar yooyu léegi dañ koy dégg rek wala bu amee yenn cas sax day nekk cas yoo xam day mel ne comme da lay tësati du la rey wala du la indil benn benn gàllankoor donc nag bi état xoolee ne cancer mu ngi bëgg a sonal jigéen ñi mu daal di def ay stratégie yoo xam ne da ciy boole vaccination vaccination mooy loo xam ne dalay aar ci loo xam ne ñëwagul ndax euh, mu dugal ci maternité yi léegi ku juddu soo juddoo rek ci biir salle d'accouchement bi dañ lay ñàkk boo demee itam xale yu jigéen ñi ñu réserver leen bu xale yi am juróom-ñeenti at ba fukki at ak ñeent dañoo war a ñàkku ci cancer bi ñaari ñaq lañu war a ñàkk de buñ amee juróom-ñeenti at dañuy jël benn benn buñ toogee juróom-benn weer jëlaat beneen donc muy ñaari dose ñaari dose yooyu mun na tax ba boo même bu fekkee ne ne yow sax dangay am bu ñu jëlee fukki jigéen yoo xam ne ne ñu ngi nii. peut-être juróom-ñeent yëpp mun nañ mucc ci cancer boobu bien que ni nag 100 pour cent amul mais dina dinañ gis ne juróom-ñeent wala juróom-ñett dinañ mucc ci cancer boobu moo tax ñu dugal vaccination boobu. vaccination bi ñu ko dugalee tam euh, acteurs communautaires yi mooy bàjjen yi ak yi dañuy ñëw ci biir dispensaire dañuy ñëw ci biir gox-goxaan yi mun nañ dem ci école yi mun nañ dem ci yenn groupement yi leen di woo wala mun nañ dem fenn foo xam ne mun nañ fa dajale ay nit. wax waxtaan ak ñoom ci feebar bi ndax ñaq boobu ñuy def comme butitu njurukaay la cancer moom donc jigéen ñi rek la concerné góor ñi bokkuñu si léegi nag ñu bëgg que comme feebar boobu li muy rey day bari trop trop trop trop te nit ñi mënuñu koo xam xale yi donc ñoom am nañ benn chance boo xam ne parents yi mën nañ leen ne pour que du ñu mun a am feebar boobu ndax feebar boobu bu la dalee boo bu la dalee boo nekkee mag di nga dem nekk ak moom lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ma lim ci mun naa ci misaale misaale kel mun naa jox ci signes yoo xam ne nit ki su ko gisee jigéen su ko gisee ci yaramam war na xalaat que mu dem seeti ji boppam. mooy ngay am ay biir yu métti métti tout le temps tout le temps temps war nga dem seet sa yaram wala bu fekkee ne da nga dem ba nga ménopause ménopause mooy gisatoo baax pare nga si nga jékki-jékki gis yenn saa nga gis ay luy génn sa kanam maa ngi jégalu baax ndax am na. ay kilifa yu fi nekk may jéggalu mais il faut ma xaw ko wax tuuti mooy ngay génne direct nga toog di jékki-jékki de man de bàyyi woon naa fóot lu yàgg mais dama jékki-jékki rek gisaat di gis ay direct loolu tam si ñoom la wala comme ni ma ko waxee naq bi di métti wala ngay am yoo xam ne liquide yoo xam ne ne yu anormal la yoo xam ne mosoo ko gis sa bopp loolu da ngaa war a dem ñu seet la am na beneen moyen de prévention boo xam ne mooy dépistage bi ñuy def ci poste de santé di ko def ci centre de santé di ko def fépp mooy bi ngay xam ne dañuy ñëw xool sa butu ñurukaay bu ñu xoolee sa butu ñurukaay yenn saa euh, poste yi nañ ko organiser comme ñun mu nekk gratuit même bu fekkee organiser wu ñoo ko gratuit moom cherul am na ñu koy def 7500 am na ñu koy def 10 000 ci hôpitaux yi jar na ko parce que dina tax bu fekkee ne ne gis nañ ci yow dara folo loolu dañ koy teel a dindi suñ ko dindee yow xanaa leneen moom beneen problème ngay am wala leneen moo lay rey wala dootu nekkati donc foo leen dégg jigéen ñi ñuy wax dépistage cancer du col de l'utérus war ngeen fa dem xool ko te périodicité bi mooy ngeen di dem boo leen ko mënee chaque un an ku ko mënul chaque un an chaque deux an war nga mën a def benn yoon dépistage donc ma leen ci ñaax jigéen ñi bu baax a baax pour ngeen di def def dépistage bi di dem di xool seen yaram ndax loo gis sa yaram loo xam ne bokku ci wala xamoo ko ci woon da ngaa war a dem ñu seet la ndax nga fajoo téeméer wala cent moo gën nga toog ba fajoo ay junni te bu boobaa du la wóor ba xam ndax yow di nga wér wala doo wér te xam ngeen cancer moom feebar la boo xam ne day coûter cher dañ ciy faj ay millions millions te du tee yàlla rek moo xam li ci ëpp li ñuy gis doo mujj fenn fu baax lu da ngay mujj gaañu te fekk na ñàkk nga bu baax famille bi sonn nañ dajale nañ xaalis a amul sutu ku nekk war a xam amul sutura te bu boobaa après doo mujjee fenn lu dul dese ko nag may ñaax parents yi bu baax ci xale yi vaccin bi bi muy ñëw fii mu ngi ci biir poste de santé yi vaccin bi gratuit la amul fay peut-être que ne nit ñi des fois rumeur moom mooy solo nit ñi ne la vaccin ñàq bi boo leen ko defee day def lii day def lii day def lii mais ñàq bi am na ñoo xam ne ne tranche bi nga xam ne mooy juróom ak at bu fukki at ak ñeenti bokkuñu ci ñooñu mais am na ñoo xam ne ñu ngi koy jëndal seen doom ñëw ne bindal ma ko ma jënd ko pour defal ko sama doom xam kooku xamoon nañ njëriñ bi doo léegi nag comme def nañ ko gratuit ci poste yi parents yi dañoo war a accepter loolu xam ne dara nekku ci day aar seen doom pour cancer col lu l'utérus mais du amul leneen pour cancer bi la leneen lu ñu leen wax ne am na ci vaccin bi amu ci Sénégal nag moom bu dara amee ku ci nekk day ñëw docteur yi léegi dafa bëri ku nekk day wax version am site internet yaa ngi fi tant que yéen a leen di déglu li ñuy wax yëpp des fois du dëgg am na loo xam ne ne dëgg la mais am na ci xam ne dañ ciy dugg ci wax loo xam ne ne yow moo tax